dugg réellement 2013 la quoi benn groupe laa bokkoon bu newoon Guédiawaye quoi man maa si gënoon nekk xale xam man bokk ma woon sax si son yi quoi mais man maay ñëw freestyle xam nga après grand yi ñëw ñu joué mais ñoom pour ma bokk ci son bi nii xam nga ñëw freestyle ba pare léegi après nag ñoom bu ma ñoo amoon maquette bi seen koñ ñoom ñoo ma njëkk a formé groupe bi quoi après dañ maa gis may def noonu à côté dañu boole ma si xam nga léegi nag man bu ñuy dem concert damay ñëw xam nga nekk booy bu ndaw temps yii dama laa wàccee kab bi nii sax ndax xam nga rek booy laa woon ñeme mu woon public noonu quoi. Mm-hmm. léegi na damay ñëw jouer après bon gars yi jouer jouer jouer seen son bi quoi ma ñëw xam nga xaw a xaw a ñëw yokk rythme bi nii mais ba may dugg si rap carrément 2016 bi quoi. bon rap dafa nekk si man ah waaw dafa nekk si man de man man bon. même bu ma toogee ni ma dara sax musique rap laay déglu quoi dafa nekk sama traite même bu ma toogee répété wu ma boo ma tegalee bi ma foosu ni ma neexee loolu quoi. bon bu ma nekkee xale nag bon ñi ma influencé carrément 50 cinq la quoi ak Akon demee ba bëgg musique nii ba dugg si ñoom la quoi si sañse bi ñu daan def xam nga ak Akon ni mu doon jaayee musique Sénégal à travers le monde même instant si damay jëlaat ay son di ko couvre comme ni mu ko wayee woon quoi. te du moom rek laa koy def am na artistes américains yu bëri yoon dama leen koy def bon day ñëw naturellement naturellement yenn saa damay toog nii affaire yi ñëw yenn saa may déglu ay son nii rajo wala télé nii benn moo ñëw ma dem bind ko xam après bu ma toogee nii def ko texte mu jeex quoi bon man deux heures de temps mën naa si bind deux son ah. mënoon naa dem léegi studio mënoon naa dem léegi nii studio dóor benn son nii dem ñibbi wala ñaar dem ñibbi quoi loolu dafa nekk si man quoi waaw Teuch nag élève la quoi élève la waaw élève la boo xam day jàng santé quoi waaw instant yi classe d'examen laa nekk nii sax moo tax gars yi duñ ma gis si ay yëngu-yëngu yu bëri nii ma xaw a si loolu quoi waaw bon man ba ma nekkee booy nag laa newoon si groupe mais instant yi carrière solo laay def quoi man dong la quoi bon son yi ma def bari na def naa presque ay 18 son mais tamit man la neex nii son yi yam foofu quoi na man bu ma neexoon semaine bii nii nii mën naa génne dix son yoo xam ne heure ma demee studio du ma yóbbu texte damay ñëw rek bind mais du foofu quoi ba pare musique bi dafa laaj moyen ba pare son yi tamit xam nga rek dangay ngay da ngay jël sa temps nii xam nga bind loo xam dafa carré quoi. boo sama premier son moo koona boobu ba léegi nii boo ko dégloo dafa nekk actualité quoi te moom laa njëkk a génnee. instant bu ma ko 2016 laa génne mais instant bu ma ko kiliboon gars yi dañu yaakaar ne 2020 laa ko génne nag son bi dafa nekk actualité quoi waaw son boobu actualité la te gëm naa ne fii ak deux ci ginnaaw ba lu ko topp dina actualité te moom laa ñu ko génnee samay son bon mixtape am naa ko ba pare génne woon naa mixtape 2018 def naa ay tournée rajo nii waaw musique bi ñoo ko doon jaay quoi si net bi nii def ma seedee na quoi man la neexoon def ma seedee mais maa nga woon ci net bi waaye musique bi ñoo ngi ko doon jaay en ligne quoi. waaw album bi nag si laa nekk nii instant yi nii mais li ma la doon tegal léegi nii mooy jàng bi jàng bi moo ma xaw a baare moo la nekk ma si carrément quoi mais instant yi programme naa bit yi nii instant yi nii xam am na ay son yu may ay featuring yu may préparé nii quoi kon am na benn gars bu nekk jaxaay fii moon jaay am na benn son bu ñuy pare incha allah waaw waaw souvenir yi bëri de ndax man amoon na benn instant nii temps ma nekk xale soo naan naan eau de javel quoi naroon si am benn kii nii rek mais sama benn mbokk moo ma sauvé woon loolu nag moo ma manqué quoi mais bu dee public moom Kër Massar kenn ëppale moom moom franchement instant yi moom même bu ma jëloon grand théâtre bu ma duggee sama gars yi fii jaxaay bi wax ma la Kër Massar bi ma dëkkoon mais jaxaay bi fii rek. gars yi gars yi danañ ko feesal quoi franchement waa ndax gars yi moom xam kii nañ ma quoi jàpp nañ ma quoi. yàggul dara nii sax may nañ ma fi woon benn concert quoi waaw mooy anniversaire bu Mawone Ndiaye bi yàggul dara jour lendemain Korité la woon quoi. waaw mais loolu tamit pour mu mën a nekk du du talent quoi talent bi mu ngi fi man gars yooyu noonu lijjantiw ma leen sax man xam nga international bi laay visé quoi xam nga yàgg naa dem rajo toog. ne xam nga ñooñu noonu xam nga xooluma leen quoi franchement buñ bokkoon plateau nga xam ne xooluma leen ñoom ñooñu noonu yëpp ñu bokkoon plateau nga xam ne carrément différence amu fa mais différence bi mooy moyen quoi ñoom moyen ñu am man bu ma ko amoon kon ñoom fu ñu toll nii ma dama koy dépassé barki Seydina Mohamed dama li nekk si man xam naa ko quoi gënuñu ma jàng ëpp ñu ma xel mooy loolu quoi macha allah. dës day tëju di liggéey quoi dës xam nga rek waaw. ñaanal leen ma am soxna rek mais dës xam nga rek talul yooyu noonu. dës école ba néegam. ok ko ñii nii sax pour nga gis ma problème la quoi. Hmm. sama soo daak sa album sa maxi sa mixtape sa kayra sa air nangu si per muy xuus si ñaari rée si ñaar woon sa punchline booy baal maan fooko jàng tàng pare ma sama kon banque mën tëj daala tekki teg si faj taa bi góom bi mbóot yëngal xuut ah, moo sono si dur bon sama kàddu bu mujj mooy xam nga yéen maa leen di remercier si déplacement bi di nuyu Mon di ko remercier bu baax ci disponibilité bi xam nga di remercier Kër Massar bi ma newoon Jaxaay xam nga cat ba cat fàttewu ma kenn di nuyu sama waa classe ma bokkal classe xam nga xam nga bàyyi ma kenn quoi waaw sama kàddu mujj bi mooy album bi mu ngi ñëw une de boss waaw son bi am na benn son boo xam ne tamit une vie de boss la dul ci album bi featuring Mon Ndiaye boobu incha allah danañ ko def son danañ ko clip waaw ñu xaar ko quoi boobu moom di luur lay doon quoi te danañ gis beneen façon dëkk si kilo boo xam ne amul woon.